Sidi Muxtaar Mbakke Balla Isa ndax nanu ni ba dem ci biiru suuf sa sëriñ Cheikh Mati Lay ñu gën koo xam ci Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke mi ngi gën a jamono atum 1924 ca Mbacke Kajoor di dëkku waajuram bi di sëriñ Baara ñaari waajuram yu sell di soxna Mati Lay ak sëriñ Baara Mbacke ñu koy dàkkantale borom kàddu gi Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke nag sëriñ Baara mi waajuram mi ngi ko tuddee woon sëriñ Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Birahim borom Daaru Monti mu doonoon tamit ku daan bay te fonkoon ko loolu doon juróom-ñaareelu doom ci njabootu sëriñ Baara yi doon juróom-ñaareelu xalifa ci a ku tedd di Serigne Touba Xaadimu Rasul bi mu toogee xalifa nag woote jàmm ak yërmande ak lislaam rawatina booloo nekk benn di gën a firndeel nag waxi suñu boroom ji di wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraxu daana firndeel tamit innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum mu toll nag dong ci laa nag laay xeex moom laay xeex lépp lenn lépp di lenn nii lislaam jëpp jëpp tarafe yëpp di jënd ay xëy di ci gont ko ba ba mën koo am rek mën koo am rek nga xam ne jiwoo gi na fii jiwoo gi am na ci yoon yi ci yoon yi loolu laa bëgg daal laay xeex comme nekk benn benn jiw dootu ci am julli yéeg ni ki julli tabaski julli tam xarit koor gi wari gi jiwoo gi loolu ci lay xeex ngir bëgg mu jëpp loolu loolu moom laay xeex mu laa ci lay liggéey lay liggéey ba am ci ndam sancoon na tamit ay dëkk yu bari ngir jàng ay yar bokk na ci tamit Tambédou ak Tawféex ak Kër Ngana te Seex Sidi Moxtaar Mbàkke dafa xamoon ne lislaam moo jiitu tariixa moo tax mu boole woon jullit ñëpp nos leen ci genn buum te loolu de Sëriñ Tuubaa mu sotti. ñoo bokk lislaam ji. ñoo bokk lislaam bi. ñoo bokk diine ji. ñoo bokk diine ji. ñoo bokk waxtu yu juróom. ñoo bokk waxtu yu juróom. ñoo bokk weeru koor. ñoo bokk weeru koor. ñoo bokk xaj makka. ñoo bokk xaj makka. amul teqalikoo. amul teqalikoo. amul teqalikoo. kon nag loolu rek loolu lañ bëgg na moom la leen bëggoon a xamal moom sëriñ bi. ngeen ko xel. nan ko bàyyi xel bu. Cheikh Sidi Mokhtar nag moo dolli ci soror yi ñaar muy juróom-ñaari soror woote bennoo ci xilaafa yépp te loolu waxam ji firndeel na ko muy tariixa yépp di julleendoo di woorandoo ba sax di tabaskeendoo daal di wax ne moom lay xeex di ci liggéey ba am ci ndam boole di ko sàkku ci kilifay diina yépp ak di ak di joxe ay milliards ci liggéey sëriñ Touba mu Rasul bi bokk na ci tamit jumaay Masaalikul Jinaan mu doon lu rëy loo xam ne kenn dootu fàtte daana yóbbu sax ay taalibe yu bari yi màkkatal mu karama te am na ci ñoo xam ne sax bokkuñ ci yoon wi bokk na ci ay kàddum tamit daana wax ne nañ sax ci jub akuk taalube te fas yéene jàmm yàlla ndax ku jàmmul yàlla ku nekk jàmm yàlla gërëm moo lay ràmm ba ci sax naan képp ku liggéeyut nga jéppee te des na la jéppi sax ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla te liggéey te liggéey te xam ne te xam ne ku jaamuwul yàlla ku nekk ku jaamuwul yàlla ne jàmm bu sa borom gërëm jàmm bu sa gërëm moo lay ràmmu ëllëg moo lay ràmmu ëllëg ku liggéeyut ku ne. ku liggéeyut ku ne. da nga jëppee. da nga na la jëpp yi. def na la jëpp. kon Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke nii la fi nekkee woon muy wote jàmm ak boole tariixa yi ak liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul ba xëy wujj suñu borom guddik talaata juróom-ñeenti fan ci weeru janvier 2018 yal nañu ko yàlla fayal te tas ñu ci barkeem. kon nag jërë ngeen a jëf. <laughs>